une sant yàlla bu baax en fait ñëw tey fii ci bés bu tedd bi ci préparation gàmmu mi nga xam ne mooy gàmmu 2019 te ñëwoon nag avec une forte délégation fii ci Tivaouane ziare ñu tedd ñu tëdd dëkk ci dëkk bi gisal ci ziar bi nag xalif général des Tidiane sëñ Babacar Sy Mansour di ko nuyu bu baax di ko ziar di rafetlu jotaay bi am ak moom léegi di wax ne vraiment événement bu am solo la parce que bu ñu nee rek Mawlud tous les musulmans du Sénégal ñu ngi leen yaakaar naa ne foo dem tey dans le Sénégal defe naa fête bu mel ni ñu ngi koy waaye nag bu ñu gàmm rek ci waaw moo tax ñu wax kon tey ñëw ci bés bi nag am indi suñu contribution waaye indi tamit suñu xalaat ci li nga xam ne ni moom la ñu def pour fexe ba gan yi vraiment nekk dans de bonnes conditions wax nga ko léegi ñu ngi woo jigéen ñëpp ci loolu parce que yaakaar naa bu ñu ne gan rek jigéen moo tax ñu wax jigéen nag bu ñu koy woo ci gan mooy d'abord mesure les mesures d'hygiène et de propreté ñu vraiment ñu veillé ci bu baax aussi ñu fexe ba xale yu ndaw yi nga xam ne ñëw ci gàmmu gi parce que en tant ministre la femme nga xam ne maa yor xale yu ndaw tout tànk yi ñu moytu ñu réer ci gàmmu gi ñu may laaj sama contribution waaye man Tivaouane laa dëkk doomu Tivaouane laa su ñëwee damay jàppale ñëpp kon mënu maa lim li fi indi kon maa ngi sant bu baax di bu baax